man dégg naa ne sew du jaam ni borom waaye li ma dal di abobo jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel 24actu point com del si wànnañ suñu actu people yi ñu daal koy tàmbalee ak Sénégal mu daal di feesal nag benn vidéo boo xamante ne njiitu réew mi président Macky Sall julli gannaaw ba mu àndee ak soxnaam foofa ca Abu Dhabi ci ak barul maanaam ci boppi wër na internet bi li ma dal di abobo ba fi moo di VIP people moom nag ñu daal di fësal nag ñu bokk ci série et Marichou ñuy fësal benn benn bu YouTube bu jël mu nekk nag mu njëkk am ci Afrique sowu jant moom nag trophée d'or boobu ñu koy jagleel seen YouTube yi nga xam ne am nañ un million muroo di am ci ay abonnement ñu jagleel ko ñi yi nga xam se ne am nañ un million ci ay abonnement ñu jagleel ne am de abonnement Marodi am ci lu toll ci un Marodi am ci am ci cent cinquante ci ay abonnement loolu mu ngi am ci ay mbiru am ci ay mbiru seen YouTube yoo xam ne am ci ay mbiru seen dañ ko am ci am ci am ci mbir yu YouTube di joxe am ci am ci mbir yu YouTube di joxe trophée deux trop trop d' argent ñu jagleel ko ñi nga xam ne am nañ trop d' argent ñu jagleel ko ñi nga xam ne am nañ cent millions ci ay. trophée d'argent ñu jagleel ko ñi nga xam ne am nañ cent millions ci ay appartement trophée trophée diamant bi ñu jagleel ko ñi nga xam ne am nañ dix millions ci ay appartement ñu dem ko fi nga xam ne moo di Feeling Dakar ñu dem ba tey ci Feeling Dakar mu daal di fësal nag photo ñu dem ba tey ci Feeling Dakar mu ñu dem ba ci Feeling Dakar ñu fësal photo Piadef mu fësal Piadef photo Pape mu fësal paire mu fësal photo paire boobu tudd photo Pape Djibril Fall mu fësal photo paire boobu tudd Pape Djibril Fall moo tax mu taxaw ci kanamu. mu taxaw ci kanamu tableau bi jàpp ay gëtam mel na kuy jooy gannaaw loolu gannaaw lu yàggul dara moom journaliste bi bi mu duggee ci TFM mu mel ne nit ñi koo gën a bëgg lool rawatina mu mel ne gën a bëgg lool rawatina nag ci xalaat yi muy joxe ci émission bi di jàkkaarloo bi gannaaw invité buñ ko invité woon ci école bi moom muy gën a jox xale yi ay conseils yi ak di leen gën a ñaax pour ñu gën a fonk seen waajur yi ca nag ca la daal di gën ay gëtam mel ne kuy jooyi gannaaw bi nga invité nag ci école bi muy gën a jox xale yi ay conseils yi ak di leen gën a ñaax ñu gën a fonk seen waajur yi ca loole nag ca la daal di gën ay gëtam mel ne kuy jooyi ñu daal di koy daaneele ak ki nga xam si ne moo di waykat bii di Gigi gannaaw nag clip bi mu defoon gannaaw clip bu mu mujj def nag muy xam la gannaaw ñi daal di koy daanee la ak Gigi gannaaw clip ñi daal di koy daanee la ak Gigi waykat gannaaw clip bi mu mujjoon a def nag mu mu amoon coow lool ci li mu sosol mu mujjee di leeral di xamle ne eh, di xamle ne nit ñi la ñu yaakaar ne moom la sol solul loolu loolu lañ leen indiloon ci acti people yi di leen jox daje ci beneen yoon incha allah.